asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, bi yoon dañuy del si rek euh, pour dellu waxtaan waxtaan suñ biir te bañ di déglu ñaare yenn activistes yi nga xam ne dañuy wax lu bare bare bari ci le panafricanisme te ce panafricanisme xamuñu lu mu doon le panafricanisme wax naa leen ko ne ñun Sénégal kenn duñ ko jàngal le panafricanisme baat bi daa mu jéggéen waaye judd na bu yàgg ba Sénégal taxawee bañ booba surtout du panafricanisme ne ba la doon góone taxawee bañ booba la wote le maa law taxaw ne du ma jàkkaarloog raay bi te lu jiitu loolu kenn ku ne xam ne Mouhamadou Lamine Dramé à son retour de Turquie dafa songo tubaab bi ne ko li ngay digle du ma ko def damay def li ma soob ak li ma sama diine digal tees dama ba nga génn réew mi xeex ak moom ba tubaab bi rey ko wala mu reylu ko ñu dagg bopp bi yóbbu boo nee musée France da nga fekk bopp mu Lamine Dramé ba euh, nga dem ci musée Paris ba tey musée de l'Homme ak yeneen musée yi bopp jéeri joor ndee jaar na fa ñu exposé ko tubaab bi di ko seetaan loola ak bañ la woon ginnaaw ba mu reyee commandant sata muk jam ko ci sàq mi ba xotti biir bi booba le panafricanisme am na waaye turwaa génn gut le panafricanisme day door a juddu ginnaaw ba ñu Cheikh Anta Diop defee ay recherche seet ko surtout surtout surtout sur noir mbokki noir américain yi taxoon bañ sun mbokki haïtien yi taxaw bañ sun mbokki martinique yi taxaw bañ Pointe Pointe-Pitre maanaam li wër ay leen ñëpp taxaw lànkandoo ba Haïti am indépendance su boppam ba américain yi xeex am seen indépendance yooyu itam ñu jël leen yóbbu le Libéria booba le mot n'existait pas mais c'était du panne panafricanisme Serigne Touba Mbacké jàkkaarloo gi mu jàkkaarloog tubaab bi c'est du panafricanisme bu mat sëkk sëkk Thierno Souleymane Baal lim def loolu la révolution torodo ko kenn ku ne xam ne ne c'est du panafricanisme mais ginnaaw bi les intellectuels haïtiens les intellectuels yi nga xam ne ñoo nekk Martinique yi nekk ci diaspora bi dajaloo xalaat ci ànd koog ñoom Malcolm X ñoom docteur King ñoo ñëpp dajaloo ak surtout suñu mbokki jamaïcain yi ñëpp taxaw ñu toog ak docteur André Clark ak ñoom Cheikh Anta Diop ñu toog waxtaan ak moom it Cheikhou Touré Modibo Keïta ñëpp toog nag waxtaan ak Gamal Abdel Nasser ñu ne daal lii benn baat dong la mën a am mooy le panafricanisme moo tax ñu jëlee ko nag tudde ko le panafricanisme mais fekkoon mu judd ci Sénégal gi kon du loolu nuy jàngal euh, daal gi Bassirou Diomaye président Diomaye daal noonu rek la ko war a defee pourquoi war ko defee noonu lu yomb la lu yomb la te euh, le ministre des affaires étrangères monsieur Diop nga ne d'origine sénégalais la ab sénégalais la d'origine tey boo ko ma woon Mali ginnaaw bi tubaab bi seddalee mu juddoo fa doon malien mais c'est un africain un sénégalais un malien c'est un type du Sahel euh, tey kooku bu demee ba ne euh, nous avons fait d'accord des coups d'état coups d'état yi lu jaadu la lu jaadu parce que ña fa nekkoon dañu doon servir tubaab bi ñoom jóg xeex xeex ba ndangu seen ab dëkk lan yoroon nag du woon am réew benn institution nekk fa woon tubaab yi ñoo dugg ci réew mi jaxase ko indi ay tiru sànni ci biir xamuñu ko président xamuñu ko imam xamuñu leen ba ci imam di ko jóg ñeneen ñi jóg ñëpp jóg mu deen coow loo xam ne réew mépp jógandoo defandoo ko booba amuñu état amuñu état léegi ginnaaw ba nga xamee ne xeex na ñoom ba jot seen bopp Burkina Faso xeex ba jot boppam Niger xeex ba génne tubaab yi jot boppam léegi ñoom ñett dañoo ànd booloo bëgg doon menn réew benn état kuy build état ci constitution de état ci la ñu toll tabax état tabax état boyoon ma ne pour nga def ko dana mat mandat présidentiel dana ko mat ndax la nga jàppoon da nga koy bàyyi am loo ci nangu jël ca kële jël ca kee ngeen bokk boole loola pour ñu def ko rédaction bi rek rédaction bi rek temps la jël te ci biir rédaction boobu ñu ngi leen di menacer di leen sonal di leen embargo lu ne ñu di ko def ba ñoom noppeeguñu noppeeguñu ba seeni état taxaw waaye président Ousmane Sonko Cheikh Anta Diop da cee nàmp ba mandi nàmp ci ba mandi les assises nationales yi amoon Ousmane xooj ko naan ko loolu day Ousmane concentré wu ànd ak ay intellectuel ay cadre du Pastef ñu taxaw loolu ñu naan solution dellu encore di dijjanti di xeex di xeex ba jot Sénégal kenn ku ne xam ne jot jote Sénégal baaxut tey bu fekkee ne jaaru nañ ci yoon Ousmane Sonko mooy doon le président de la République mais loolu lépp amut projet yi mu doon bind ak lam doon def lépp léegi lim mën a def rek mooy joxoñ jumaay ba pare topp ci ginnaawam kon loolu ñun ñëpp Sénégal yi ñoo ko gisandoo te noonu la demee te buñ bokkee waxante dëgg suufu senegal niñ ko jaxat-jaxatee métti na koppari réew mi niñ ko jaxat-jaxatee metti na réew moo xam ne justice bu doxul woon kenn ku ne xam ne ne métti na Sénégal dafa bari góom ba heure bi góom bi mi ngi nàcc sab góom nag mënta nàcc mënta nàcc ah, nga war a jag-jagal di jubbanti ne damay dem fekki ñoo xam ne ñu ngi build état noppeeguñu te man lu mu bon bon bon am naa état ndax ci élection la aw gagné kooku lu seenum xel gàtt yomb na bu ñu yàkkamti Ousmane sonku duñu war mukk mukk ci àdduna Ousmane Sonko et pour le panafricanisme Ousmane Sonko booy xool un panafricaniste xoolal Ousmane Sonko ni ngay xoolee jëmbi gis ci moom lislaam noonu ngay xoolee jàkkaarloo moo xam ne kii c'est un panafricaniste Afrique ànd dong la bëgg te bu soobee yàlla suñ mbokki africains yi jëru ngeen leen di leen tontu waaw pan africa con bu leen ko waxati bu leen ko waxati ñoom xam nañ ñi ngi liggéey noppeegunu nit noo ngi dajale di dajaloo ak di jéem a jubbanti ak di defar bu noppee nag kenn ku yor sa état daañu mar a waxtaan comme ay nation yu toog di waxtaan mais heure bi Sénégal wërta mën a dem directement rek ne damay bokk ci les pays du Sahel alliance du Sahel Sénégal mu du cee bokk léegi bala ceeb mën a bokk d'abord sax assemblée nationale ubbi bu assemblée nationale ubbi woon tey député yi voté waxtaan xam ne kat ñun dañoo war a bokk ci révolution ba bu boobaa ñun ñëpp ñu jox xam ne député yi ko wote moo dagan ñu bokk di ko def mais comme amaguñ sax assemblée nationale bu bees ngeen bëgg président Diomaye dem ba Burkina Faso di fa joxe boppam di ko fa dénkaane loolu am xel du ko nangu ñoom nag mere wuñ ñu de ñoom xam nañ ne ñoom ñoo noppeegul te ñoom dañoo fragile pour le moment Russie rek moo leen jox fit ak di leen jéem a jàppale mais actuellement bu Russie rocce ko loxoom rek tubaab yi ñëwaat jël réew ma loolu moom ñun ñëpp noo ko bokk xam te wóor na leen ne état boobu état yooyu bis bu jant so France yi ñuy fexe nu leen coup d'état français ngi organiser yoo xam ne dara baaxu ci loolu lépp ku ne xam na ko maanaam stabalagul nekkagul état nekkagul fédération mais une alliance la ñu wax te li Sénégal woote ak li Sénégal bëgg Sénégal une fédération révolutionnaire la bëgg des du Sahel les pays du Sahel Sénégal bu mu sañoon Ousmane Sonko sañoon benn état lay doon benn état loolu nag pour mu doon benn état il faut état bu ci nekk état bu ci ne prêt waxtaan ak sa assemblée nationale préparer li ñu ci duggee am sa programme de la révolution bu ko defee ñoom ñu mën di daje ay assemblée wax sénégalit it CEDEAO Sénégal tëbul dugg ci CEDEAO da ciy dugg muy organisation boo xam ne ñoom ñëpp ko bokkoon ak IMOVA ak ak ak ak la Sénégal euh, le président Diomaye mënta jël rek réew mi ne fër ne gedd naa lépp déedéet déedéet président Diomaye dafa am dafa lu ko raw kan boo ko waxante dëgg tam boo ko waxante dëgg pollution bi nekk Dakar la polition qui est à Dakar nga ne troisième ville bi nga xam ne moo ëpp pollution ci adduna bi pollution boobu rek dama ne le président Diomaye fay amul xaalis boo xam ne xaalis boo xam ne mën na koo mën na fa jëlee pollution bi te teewul pétrole baa ngi bëgg a tàkk détoxine yi xamuñ fu koy def ba léegi nii leeraluñ ko nit ñi dana pétrole pétrole pétrole am na lu gën a dangereux luy ànd ak pétrole. maanaam déchet déchet yooyu xam dañ koy jël fu ñu koy sotti loolu sax waxaguñ ko waxaguñu aussi ñii nga xam ne ñoo yor justice bi doon nit ñu dëng nga ne boobu ba nëgë ni ku fi nekk dañuy ànd yu lënkaloo yu di yàq ak di saboté ak di kompolo yéen ñëpp yéen ko xam te gisandoo ngeen ko mi ngi nii suñ kaso baa ngi ni fees dell benn néeg boo def trente personnes ñu def fa cent cinquante wala deux cent personnes nit ñi toog ba suba kooku jomaay mënta jóg naan damay fekk sama bokki africain yi ëllëg bu ma laajee indi sa dossier prison ma indi prison bu mel nii jomaay warut a def loolu le président jomaay mënta dem bokk ci benn organisation heure bii comme ni mu net assemblée nationale ko tënk yàqu-yàqu ci réew mi ko tënk ci koo xam ne de loolu faraw moo tax il faut en tant que panafricain ma xam le panafricanisme mooy lan topp ci ba may gone ba ndëga ci ginnaaw Cheikh Anta Diop boobu ba ndëga ni ma xam luy le panafricanisme mu jara mu doon communiste dem France en 1975 milite ci le parti communiste français di leen jàppale sonn ci trop lépp ana lu ko waral c'est le panafricanisme maanaam kii ma sonaloon kii ma sonal muy tubaab bi am na ku ko jaaxal muy le communiste bi ci wetam di ko dóor ay xeer kon du ma ñëw mukk di ànd ak tubaab bi damay ñëw ànd ak le communiste Georges marché loolu moo boole woon ma sympathiser le partie communiste francais ba ni ma xamee ne c'est le pas le communiste français moo mën a jubanti mais nag la révolution bi nga na moo moom la Sékou woote moo ci man dara moo tax ma dem Guinée fekk Sékou Touré nekk fa ak moom ñetti at ba mu faatu ñu suul ko ma door a départ wut si États-Unis dama ne kan bokk wante dëgg critique yi nañ ko bàyyi ten boo bokk jàppale Diomaye le président Diomaye ñëpp a war a jóg kenn ku ne war ngaa takk sa ndigg réew mi li fi yàqu bari na moom képp mënu ko juriste yi tey bu fekkee ne ñu gore lañ mën nañoo ànd booloo waxtaan xam ñoom xam ne li ñu yàq nu bokk ko jubbanti ñi nga xam ne al réew mi lañ sàccit kenn ku ci nekk la nga jël xam nga ko nga dikk déclarer sa bopp mu yomb lool ci nun ñu xam foo nekk ak kañ koy fekk noo koy fay ba xam ne dañ laa war a denc kon le président Diomaye dama ne négligé wul mbir mi waxtaan naa ci ay pan africain yu nekk fii mais bi ma waxee ñëpp ma comprendre ne ma lii di xamuñu ko woon man leen kon doon ngeen wax waaye bi ngeen ma dégloo may sénégalais doon un pan africaniste ba may doon pan le président Sénégal bi judduwul président bi juddu kon am naa ci lu ma xam Théophile Obiega bi nga xam ne moo dem Cameroun dugal ko fa ci Cheikh Anta Diop la ko déggee lu mu ci xam Cheikh Anta la ko xamee ba tax les activistes camerounais nga xam ne amuñu xam-xam bi tëb di wax ngeen di dégg mu di leen naqari ngeen di leen tontu non non non le président Diomaye il lui faudrait un mandat un mandat bu mat sëkk ba noppi bu mu woon la Sénégal est stable le Sénégal mi ne ci côté yi normal la Sénégal mën a encaisser ay kurpeñ bu boobaa léegi mu taawula Sénégal woote une fédération révolution des états du Sahel am ah, ma doon dénk le président Diomaye di dénk le président Ousmane Sonko di dénk aussi les pays du Sahel ca dëgg-dëgg am na luñ boole ak naar yi mais jukk yi bokkut diine yi fekkoon ni dëgg la ci ñoom dëgg la ci ñoom am na nu muy demee daanu mën a ànd te duñu am benn difficulté mais naar ba mu dalee jaay africain yi tubaab bi jaayu ko pour naar l'esclavage naar du ko naar du ko du ko du ko du ko du ko abolir tey ku mel noonu boo ko jëlee boole ko ci seen biir problème képp dañuy indil moo tax nous allons former li ma leen digal mooy nous allons construire le Sahel sans les pays du Maghreb la Mauritanie est un pays noir la Mauritanie ñi ko sanc ce sont les Saraxule la Mauritanie c'est la terre des noirs la terre des saraxule naar yi jóge Yémen ñoo jóge Yémen ñëw di jaay si Mauritanie ci saraxule yi faf dëkk fi mais Mauritanie terre la boo xam ne saraxule yi ñoo ko moom donc la Mauritanie est une terre noire Mauritanie da ciy bokk da ciy bokk mais comme ni ma leen koy waxee kan bokk dal dal gi am na solo wax naa leen sànq ne le panafricanisme est né à Dakar est né au Sénégal liñ ci ñàkk ci ay bakkan kenn xamul mu toll boo ñu fi aux États-Unis aussi li fi dee ak ñi fi xaru ak jaamin fi rey ñëpp taxaw rek di am bañ bañ ak nooteel ba seen bakkan des ci ñooñu ñëpp ay panafricaniste lañ ba ñoom Cheikh Anta Diop ñoom docteur Kourouma ñii leen wax ñoom Olympio ñii leen di wax ñoo ak Mouammar Kadhafi ba ci Thomas Sankara ñooñu ñoo dikk waaw jubbantiwaat teg léegi photo baa ngi fi maquette baa ngi fi waaw architectural format baa ngi fi ana lu ci des nu noppi nit nag bu génn ci biti daa war a soli yéere xeex nañ ba taq rip ak deret suñ bubu xotti ko fu nan nu bàyyi nag ñu solu sañse defar suñ yog waxtaan suñ biir door a seet fu dajaloo ci dans un pays du Sahel pour waxtaan pour boole fédéré fédéré état yi état bu mu matut fédération bu mu dem coow la fay indi wala mu jële fa coow moo tax na leen bàyyi ban bildi seen état ba seen état noppi mu wóor ñii noppi nañ ñii état la bu reconnaître aux Nations Unies ñii état la boo xam ne organisation internationale reconnaître nañ leen ba ñëpp samp toog kenn ku ne sa état ñu reconnaître ko bu ko defee boo mën nañoo booloo dem Nations Unies créé suñ fédération mu ne nun noo ko bokk naar yi buñ bëggee mën nañ jël comme Turquie ni ko européens yi jëlee ñun mën nañoo jël les pays du Maghreb associé ñoom noonu mën nañoo bokk groupe d'intervention militaire mën nañ koy bokk di ko def mën nañoo bokkit ci monnaie bi di ci waxtaan mën nañoo bokk système économique exchange loolu mën nañ koo def mais pour le moment pour le moment bu kenn saaga benn activiste bu ne Cameroun wala bu ne Abidjan wala bu nekk fen pour la première fois ma gis Ivoiriens yi di casse aux côtés des Sénégalais pour la première fois ma gis ko Ivoiriens yi casse te bu njëkk Cameroun yi était à côté de nous Ousmane Sonko ni ci prison bi nuy xeex ak moom Camerounais yi ak ak ak ak Burkinabé yi ak Maliens ñoon doon jàppale muslim na gis di wane bu live wax ci lu baax mais bi nga xamee ne nag ah Diomaye président jomaa yi dem na Abidjan ah jóge fa dem ci le pays du Sahel ah, wax la CEDEAO gis naa Ivoiriens yi kenn ku di live di tagg Sénégalais yi di live di wax lu baax ci Sénégalais yi bañ ñee de l'autre camp bi doon supporté tey defe dañ leen a war kenn waru leen parce que le Sénégal a un passé noir en Afrique tubaab yi dama ne fun àgg ci Afrique sénégalais moo jàpp ci loxo bi yóbbu ko fa kon bu ñuy déchaîner l'Afrique bu ñuy déchaîner l'Afrique Sénégal moo war a jiitu loolu Ousmane Sonko conscient na ci président Diomaye lu mu xam la te discours bi mu wax ci la CEDEAO comme Sénégal génnagul ci CEDEAO mi ngi ci biir CEDEAO bi te taluñu taluñu CEDEAO liñ tal dëgg-dëgg mooy góom yi ak nàcc nàcc yi ak ñii Macky Sall rey ak coono bii suñ kaw dama ne ñu dañ ci loolu lañ nekk moonu jàpp ba amuñu jotu toog naan Afrique Afrique nangam bala ñu mën a Afrique am fu ñuy bokk ak fu dul bokk day fekk ñu defar sunum réew ba état bi jaar yoon république bi tegu ci yoon kenn ku ne foo tourné seen yoon wi bu ko boobaa nag mën nañoo taawu li ñu am fekki africain yi fu ndaje baax na pour nu man a fédérer Afrique mu comme les États-Unis ñoom suñ xaalisu bopp am suñ banque bopp di prendre suñu xaalis am ay banque forte tas ci biir Afrique bu ko defee daanu mën a liggéey liggéey bu sel une alliance moom lañ déclaré wax nañ dëgg nañ déclaré alliance ñoom ba former seen état ba noppi bu ko defee ñu état du Sénégal noppi na état Mauritanie noppi na bu ko defee ñu mën a toog nag waxtaan jël la Bénin même Abidjan war naa mën nañu ñëw ak Ghana ñëpp war a dikk même le Nigéria bu bëggee génnee dëkk bu ko defee ñu dajaloo ñun ñëpp en tant que des peuples ñu toog waxtaan trouver une solution organogramme boo xam ne ci la awale réew mi ba kenn du mer kenn ku ci nekk xam ne foo nekk fu ne boo lambee sëb dënd rek tu dans la fédération du Sahel loolu moo ñu yëkkati waaw ten bàyyi may battement nan may battement président Ousmane Sonko ngir yàlla na ko may battement waaw IFAN gi nii jege ba dee ña nekk IFAN ñëpp ñoo xam ne panafricanisme lu mu doon te Ousmane am na mën naa duggante ak ñoom yàkkamtu wuñu yàlla yàkkamtu kan defar suñu sàkket defar suñu tëpp tëppal li ñu war a ñu def ko li ñu war a dindi ñu li ñu war a dugal ñu def ko ñun war a jàpp jàpp ñu war a bañu baleen kaso bii fu mu nekk kaso bi mu nekk sax dañ ko fi yële waaw def benn kaso boo xam ne maanaam kaso régional moo war am kaso régional moo am waaw ñu buñ fédéré nag am fédéral prison bu fekkee ne fédéré nañ les pays du Sahel mën nañ fédéral prison mais actuellement région bu nekk war ngaa am sa prison bopp sa prison wala ñu am benn prison boo xam ne aussi bu mag lay doon Sénégal la ko moom waaw ñu génne ko dëkk bi yóbbu ko fa sori def ay usine de transformation yu wër prison bi loolu ay xalaat la xalaat yi du doy man sax maa ngi doon xalaat naan comme nii la demee te mi ngi dekk demee nii ñu transformer le Sénégal ay province province du Kayor province du Baol le Sine et le Saloum province du Sénégal oriental le sud du Sénégal province du fleuve maanaam yu mel noonu ñu ak Sénégal ñeenti province bu te li ni gouverneur loolu ba tey baax na en attendant ñuy xaar nag la fédération de pays du Sahel la fédération pays du Sahel mënut a ñàkk ndax il faut nu boole suñuy doole il faut ñu boole suñuy soldat parce que guerre dafa war a am te guerre bi war a am dëgg dëgg ñu ko bëgg a déclenché ci la Sahraoui la wi Maroc li mel mi ngi koy campagne pour di jéem jé jéem a nangu les certains pays francophones di nekk ci dëkk bi côté Algérie ma nga taxaw di fipp fële di jéem a provoquer la Russie pour Russie di ki jàpp maanaam xeex la boo bu metti la moo tax ñun les pays du Sahel bu ñu àndee man nañu boolee armée boo xam ne sous le support de la Russie ndax il faut Russie ñëw bu ñu waxantee dëgg bu ñu fi bu ñu naxante il faut la Russie ñëw ndax américains yi am nañ contrat yoo xam ne ak ak l'Occident dara du tax ñu bàyyi ko dama ne la communauté européenne am na relation boo xam ne ñoo américains yi du yàgg mukk ba américains yi ba leen américain les Occidentaux ku sa bët xonq ku sa bët xonq Amérique jóg waaw xeex bii am la Russie di ko def en Europe ñëpp ngi ci bëgg a dugg mais kenn ñemewul la jóg benn avion mënta jóg tiim tiim la Russie kon Russie am na pouvoir boo xam ne kattan goo xam ne ca dëgg-dëgg buñ ko joxee loxo te leen yor moom rek la bëgg te am na njëg bu nax sum bopp émotion bu mu ci dugal naïveté bu mu ñu ci dugal kenn jóg dama ne as ñàkk piété day gàttal sagam te la Chine Corée la Russie ñooñu ku wéeru ci sa ginnaaw wala ci sa cummukaay sa cummukaay dama ne koo bëreel koo bëreel am ndam koo bëreel am ndam kan bokk nag muñal président de la république may ko battement may ko temps tey yéen ñii laay fi aussi ngeen nii moom lañ ko expliqué ngeen expliqué woon pays africain yi pour ñu comprendre affaire du ci Sénégal rek ñoom noppeeguñu pour créer des états un état moo noppeeguñu pour créer ko kenn accepté ko Nations Unies demaguñ fenn bu ñu defee seen lépp lépp noppi conjugaison lépp mat ban taxaw ko muy état Nations Unies ne ëpp d' accord les états du sael alliance du Sahel mu taxaw. nu ñu taxaw ñoom ñu taxaw assemblée wax kenn ku ne tàggu sa assemblée ñu waxtaan ba déggoo daanu mën a ànd te xaddu damm mais coowal léegi day yàq wax ci day yàq liggéey bi nañ bàyyi Ousmane Sonko mu dem may ko bat maa mu liggéey may président Diomaye mu liggéey waaw suñu assemblée noppee ah suñu Sénat noppi lépp noppi ñu mën a toog waxtaan ba déggoo ci condition yu wér bu boobaa mën nañoo jël réew mi nag am fuñ ko jébbale waaye yëkkati sam réew di ko jébbale te mataloo dara kooku bu ndee ba ci biir day metti encore mu del si les pays du Maghreb je ne suis pas raciste mais nous sommes incompatibles parce que da ngeen a mos deretu esclavage naar yi dañoo ñam deretu esclavage ba noppi moo tax pour ñu respecter nu du yomb te bu ñu respecté wu luñ mën a àndi décider dara moo tax kan bàyyi les pays du Maghreb ñu dem ku ci bëgg a ñëw nag ñëw individuel yi ñu signé loolu loo xam ne boo déconné ci sa ñu faj la waaw rek moo ci solution maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a di ñaan jàmm jàmm dong lañ bëgg ci réew mi waxtaan yi ne boo ko suñu ñu ko wax xale yi euh, duñ liir te xale léegi euh, duñ gëstu li ñu xool ci internet bi daal lu leen di reeloo wala ñu sey yu ñàkk xorom ci lay xale yi nekk di ci seetaan waaye waxuñ ci leen groupe yi aussi au lieu wax lii duñ ci wax d'accord baax na affaire famille lañ cee wax ak yu demee noonu moo tax nun ñi nga xam ne yàlla am na lu mu xamal buñ toogee ba mu yàgg dañoo war a ay live ak waxtaan yoo xam ne kilifa yi daañ ci mën a jot waa penc mi jot ci gone yi jot ci bu ko defee daanu mën a ànd bokk loo xam ne buñ ko taajee ab bang lay doon wax ko toog danga nga ko ku toog da nga wéeru le Sénégal a ses arguments daf ko war a indi Sénégal yi d'accord ci ba noppi ñu door ko mën a jël nag fu ñuy dem door faa dem kon kan may temps ak battement ñi nga xam ne dañuy door a toog te billaahi wallahi ma ngi leen ko wax ab workat néewu ci France gi daa daañu génn ci France léegi mais tant que assemblée nationale loolu toogut ba député yëpp wote ñëpp d'accord ci loolu duñ mën a xëy sànni CFA bi waxu moo tax waxuñu ci assemblée nationale bi dama ne lim tënk bari na moo tax le président de la république ñoo ngi koy soññ pour mu tas ko ndax assemblée du assemblée dara wax naa leen ko ci vidéo bële du dara assemblée bi ñoo fi ne Ousmane Sonko du bokk ci élection ñoo ko fi waxoon assemblée bi ñoo doon forcer Ousmane pour ñu tëj ko assemblée bi ak justice bi wóoroon na leen ne Adji Sarr dara du ci dëgg mais dañoo àndandoo ak moom assemblée bi gis ngeen ko lépp loo xam ne ay passeport yu bon ñoo ko fi def kenn gis ngeen boulangerie ay passeport yu ni yaay gis ngeen ko ci assemblée bi yéen ñëpp gis ngeen faux ngeen ko ci assemblée nationale bi yéen ñëpp gis ngeen ko gis ngeen sunduwaan bi ni fi drogue bi daan duggee loolu lépp tey doon ay sikk-sikk ah ci noonu noor ko jubbante ba noppi door a fekk ay nit ñu xëy bu bagage yu yóbbul leen bu ëllëgee xam ne ñoo xam yéen fi indi drop bi trafic de passeport yéen ko fi indi yéen fi indi yéen fi indi lii bala ñuy àgg ci loolu nag na président Diomaye toog ñu may ko benn mandat amul jubbanti Sénégal ba réew mu tegu ci yoon bu ko defee au niveau international daañu mën a tàllal suñ loxo mais actuellement suñ loxo bii dafa taqi puub kooko ko tàllal bu xeeñ mu a yaa ma xeeñal waaw kon maa ngi ziare ñëpp encore une fois di ñaanal ñëpp jàmm di soññ nag tous ces professeurs d'université des professeurs d'histoire buñ rëy buñ rëy nañ jël portable bi di wax xale yi di leen déglu ndax xale yi mënuñu dugg ci école bi waaw xale yëpp liiruñu waaye jaadu na les professeurs d'université ku ci toog samedi liggéeyoo nga jël sa portable benn live boo xam ne da nga ubbi bopp xale yi sur le plan historique waaw lu am solo ngi noonu may ziare ñëpp nag di ñaaral ñëpp jàmm man la Seydina Ousmane Dramé bu la révéler conscience peace and love peace and love yal nañ buur yàlla sutural yal nañ buur yàlla sutural te boole Afrique yëpp mu doon benn nit ku ñu sonn na trop nit ku ñu sonn na trop na ko yàlla dakkal na ko yàlla dakkal te aw ko ci loxo Ousmane Sonko ak président yi ñoo nekk Afrique te nar a booloo tudde seen bopp euh, euh, les États-Unis du Sahel les États-Unis et révolutionnaire des États d'Afrique les États-Unis lu lañ bëgg comme ni Amérique mel daal noonu lañ bëgg les États du Sahel booloo te naari toog déglu ñu na naar toog déglu ñu ba noppi bu noppee seet ba xam daañu ci mën a duggoole déet naari foog ñu éviter leen foog ñu éviter leen ndax jaam mënoo ko jaay mos dereti jaam dereti jaam mos mënoo koo mos ba pare wañu ko wañ wañu ko ku ñuul loolu mënta ne dereti jaam mënoo koo mos ba pare wañu ko di respecté nit ku ñuul te jaam yi njëndum jaam yi ba nëgëni Mauritanie ah ña nga fa te Mauritanie saraxulee moom dëkk ba waaw loolu lépp nañ ko war a doxaale ba defar loo xam ne du tas comme